xam nañu ni euh, France mooy bunt bi nga xam ne africains yi foofu la ñu duggee biir Europe léegi nag euh, est-ce dañu continuer di wéeru ci France mu ñuy noot euh, yaakaar naa ni ñi ñu fal bokk na ci li leen fal mooy ni ko ñu xool doxalin bi ñu am ak Occident yi. dëkk yi amuñu ay xarit Mélenchon ñëw na fi. arrangé wu loi France Macron bu fi ñëwoon ñoom Mélenchon duñu ko duñu kontaan donc dëkk yi amuñu ay xarit ay intérêt la ñu am yaakaar naa nag sunu njiit yu bees yi toog xool. jàkkaarlook ñoom xool suñu intérêt fu mu nekk doxee foofu mais loolu duñ ko def si kaw beddi duñ ko def si kaw sànni duñ ko def si kaw euh, dagga bum non dañ koy def si kaw waxtaan Sénégal am na ay diplomate yoo xam ne mën nañu def liggéeyu suuf bi li si kaw ñun population dañ koy dégg rek léegi nag ñun dañu fal ay njiit yoo xam ne adduna bi yëpp dañ leen di xool Afrique yëpp dañ leen di xool ñoom ñoo war mën a teete Afrique par rapport ak rupture boobu ñuy wax ak Europe